Euh, d'abord dafa doon loo xam ni dañ ko woote en relation ak PNUD d'ailleurs ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ci accompagnement bi ñu def pour que maire yi euh, ci collectivité territoriale yi mën a xam bu baax a baax lan mooy objectif de développement durable maanaam les ODD ODD nag àddina bi yëpp ñoo ci d'accord joxante rendez-vous 2030 pour que poñ bu nekk ci ODD yi te mu doon fukki ODD ak juróom-ñaar réew mu nekk lañ la ca sas nga war ko mën a def atteindre objectif yooyu loolu nag Sénégal ci la nekk di ci liggéey wante dañu xam ni Sénégal lu mu yaatu lu mu yaatu yaatu foo teg sa tànk rek commune la département boo demit département la wala mu doon ville kon ñu xam ni ña ngànk loolu nga xam ni dañ leen fal ñu toogal fa askan wi wante it toogal fa état ndax état Euh, maire demembrement état la d'ailleurs dafa am lu solo lu ko état dénk muy état civil maanaam kayitu judd yi du ministre moo koy signé du président de la république moo koy signé du préfet moo koy signé du sous préfet moo koy signé du gouverneur moo koy signé kan moo koy signé mooy maire ba muy officier d'état civil principal moom nag mën na ko délégué ay adjoint am wala ñi nga xam ni moom la leen nangoo délégué kon état bu jëlee lu mel noonu dénk la ko muy état civil nga xam ni suñu koom réew ñaata la ñu doon comme population suñu euh, li ñu soxla ci courant li ñu soxla ci ndox li ñu soxla ci mbay mi li ñu soxla ci càmm gi yooyu yëpp c'est en fonction de la population te ñu dénk la loolu kon xam nga ni état fonk na kooku moo tax ñu bëgg loolu état man koo jël également en charge pour fexe euh, ba maire yi xam ODD moo tax ñu organiser ko ak PNUD xam-xam boobu nag li muy jariñ mooy bu ñu delloo ci seen collectivité ñu bàyyi xel bu baax ODD yi nafar ko xam ko bu baax a baax ba fuñ ci toll ci ODD yi rek ñu mën a xam ni fii lañ ci toll bu laajee effort bu ñu war a def ñu def effort. gouvernement bi à travers ministère de collectivités territoriales du développement de l'aménagement des territoires jàppale leen ci ba ñu xam ci ba ñu mën cee egg fi nga xam ne moom la ñu war a mën a egg. maire xam nañu seen place dañuy insister rek pour que ñu xam. yaakaar bi ñu am ci ñoom gouvernement bi am ko ci ñoom pour que ñu mën a assumer seen rôle ak responsabilité ce collectivité territoriale la ñu nekk ya ñu nekk wax naa ko léegi nañu li ñu représenté état ñoom maire yi donc loolu dañ koy nafar rek dañ koy fàttali mais maire yi jël nañu conscience ci loolu mais ñu leen koy fàttali rek di ko fàttali suñu bopp pour xam suñu rôle ak suñu responsabilité ca fa nga xam ni foofu la ñu askan bu wóolu ba teg ñu fa waaw xam Euh, Sénégal dafa egg ci jéego ak dimension boo xam ne àddina bi yëpp dañ ko naw Sénégal c'est une démocratie apaisée Sénégal dañ fi def ay élections te benn coow du jib yàlla na xéewal nañu ñu am pétrole am gaz loolu dañ ko war a sant yàlla ba li ñuy wax malédiction du pétrole bañ ñoo dal euh, coow li nag pour man euh, amul solo lu tax question bi ñu war a posé wu rek mooy waaw lii moom Sénégal. est-ce que li mu waroon a am ci mbir mi am na ko war a amu ko am na ko amul benn fifteen boo xam ni ci lañuy ñuy exploité ji ëllëg te Sénégal moom ko benn fifteen wàññeeku ci li Sénégal war a am yëpp dina ko am mieux président bi mu toogee dafa woote waxtaan te cos Petrogaz wax ni waay waay kaale ñu waxtaanee lii nga xam ni lii lañ ci war a am te loolu nëbbuñu ko lii lañ ci war a am ñu waxtaanee ko ba xam nan lañ koy jëfandikoo. beneen bi également mooy dafa am benn institution bu bu mag boo xam ni moom la wax ITIE euh, képp ku bëgg transparence kenn forcewul kenn nag mu bokk ci mais Sénégal président Macky Sall mu décidé bokku ci te loolu ITIE boobu dafa wax ni ay la yéwén day bi ñu wëree àddina bi ba mu daj nii Sénégal di dox doxale ci wàllu ressource minière pétrolière ak gazière wax yëg yàlla jox nañ leen Euh, jox nañ ko raayee moom Sénégal ndax gis na ni lépp teg na ko ci table bi lépp nag ñu war ko waxtaanee ñuy ñuy wax ni rek na xel yi na na na xol yi dal nañu dal Sénégal dal moo ñu jik euh, moom lañ ci mas a nekk président Macky Sall mi ngi liggéey liggéey bu am solo looloo tax d'ailleurs bi mu soxla waatee ñu fal ko ñu falaat ko te mi ngi teg Sénégal ci raaya boo xam ci ci ligne boo xam ni buñ ci jógul Euh, émergence bi waxuma deux mille trente cinq mais voilà balaa deux mille trente cinq dañ ko jot donc na xool yëpp tàppe ñu bokk ndey bokk bàyyi liggéey ngir suñu réew avancé jëre ngeen jëf.